ak 2021 <laughs> ñuy ubbi bunt yi di gën a yokk seen ni nga xamante ni mooy. Euh, te Alioune Kassé ubbi leen bunt yi <laughs> mooy résidence permanente yi ñuy joxe dañ koy gën a yokk chaque année donc Pape nañ dem xool reportage bi bu ñu ñëwee ñu wax leen lan mooy njëriñu dem foofu ak dem foofu lan la leen di apporter mais en même temps tam ñun lu ñuy apporter Pape en français lay doon de

experts. Les seuils vont ainsi passer progressivement de 300 000 aujourd'hui à en soit de la population totale, une hausse qui comprend aussi l'accueil des réfugiés. De nombreux secteurs recrutent, notamment ceux de l'énergie ou de la construction. Le gouvernement estime que les nouveaux arrivants sont plus susceptibles de lancer une entreprise que les personnes nées au Canada, ce qui stimule les investissements, l'innovation et crée voilà encore un reportage bu suñu ay confrères yu Euronews moom la di di jël euh, ci loolu ñu doon wax euh, jëm ci euh, Canada paraît-il mi ibbi ay buntam pour les migrants dëgg la Pape donc Canada ku ko xam xam ne dëkk la boo xamante jafewul torop pour nit am fa kayit parce que boo seetloo ñi nga xamante ñoo fa dem ci suñu ay étudiants déjà ñu ci bëri bu ñu demee foofu décider toog foofu dinañ dem ba benn instant nekk résident daf leen fay yomb dañuy dem am carte yeeg lépp donc euh, foofu du comme ñeneen dëkk yi nga xamante ne instant bi ñoom ils cherchent à fermer leur porte du si mel ne États-Unis Donald Trump je pense a ñëw parce que ñoom soxlawuñu li nga xamante li ñu soxla mooy développer yëkkatiwaat seen économie parce qu'ils ont beaucoup de vieux ñoom dañu seen ah, population jeunul torop donc dañuy bu ñuy ubbi c'est plus pour genre jeunes yi nga xamante ne ñoo nekk fii ñoo nekk feneen ñoo nekk Afrique ñoo nekk foofu déjà aussi ñu gën fa toog pour pour pour kii ah soxla ñu ay màgget nag ma donc trois vagues yi ñu wax nee nañ bëgg nañ dugal trois cent dix mille euh, migrants ci deux mille dix neuf bi trois cent trente mille ci deux mille vingt bi ak trois ci bi donc loolu pour soutenir seen économie la Pape Cheikh ñu traité sujet bi tey mooy que ne on a beaucoup de jeunes ici yoo xamante ne bëgg nañu dem immigré ji feneen mais xamuñu peut-être fan nañuy dem wala dañuy tenté wala dañuy dem à l'aveuglette exadex dañuy dem à l'aveuglette dañuy jóg dem ci benn dëkk boo xamante ni peut-être seen chance nekk fa wala tey li nga xamante moom la ñu jàng gëstu ko amul foofu wala du leen yomb pour ñu liggéey ko foofu en même temps seen métier tam du leen ko permettre mais am métier duñu dem ak benn bagage xamante ne am nañ tuuti bagage la intellectuel wala mu nekk métier boo xamante ni ñoom maîtriser nañ ko mm-hmm. parce que nee kenn du dem nuñ ko waxatee euh, te ñoom sax la ñu am évidemment il faut nga am métier avant nga fay dem. loolu je pense parce que jeunes yu bari tey dañuy ne ñoom duñu liggéey fii dañuy bàyyi ba dem tukki soog a liggéey duñu nangu def fii dara alors que euh, immigration. immigration léegi dañuy wax immigration choisie la. dañuy tànn ñu ñu soxla parce que du ñu jël ñëpp tam yóbbu leen fa amoo métier amoo dara donc euh, je pense que message bu important la pour ñiy jël gaal gi déjà. ñu jéem a ut benn métier boo xam ne dinañ ko mën dem Canada dans leen Nord. te bàyyi gaal gi dem si yoon yoonu normal bi am nañu ay villes souterraines. dëgg dëgg la Bijou ba pare euh, comme ni ñu koy waxee rek euh, je pense que nit kuy jóg. pays yi nga xamante ni ñooy tëj seen frontières yi sax am nañ ñoo xamante ne dañ leen soxla te amuñu ko ci seen dëkk hmm. donc lu ñu tëj tëj tëj tey bu ñu gisee benn Didi boo xam ne tey dafa am nu mu mel yaa ngi dégg am <laughs> am benn niveau peut-être intellectuel bi wala am benn loo xamante ne xam na ko te ñoom xamuñu ko dinañ bëgg indi kooku foofu te ñoom hmm. souvent buñ la soxlawee rek say mbir day yomb ñun ñu nekk fii ñun ñu nekk xale nekk Afrique ñu nekk Sénégal ñun ñu nekk feneen bëgg nañ qu'on se rende utile d'abord nañ hmm. nokk ñoo am nañ mbir moo xam ne xam nañ ko te ñoom xam xamuñu ko wala ñoom xam nañ ko. xanaa dañoo dof dinañu dem ba am li am li nga am ñu doog a ñëw doog a ñu ñu toog ah ñoom ni ñu soofee ñoom ñi am kayit ak yooyu dem fa ba pare yàgg fa ñibbisi dañ naan nit ñi toog leen am na ko ma ci gis galo ndeysaan nit ku baax tekki Amérique Gallo ñëw rek lakkal nit ñi ak wee ñëw leen ngeen toog Sénégal ma ne ko waa bu ñu demee ba am li nga am ba pare dinañ dem toog Sénégal dañuy dem de fan la ñuy jaar fu ñu déposé kayit yi comme dépôt normal bi rek visa dem jenn bu ngeen ma gisatul dem na pour nit ñi déposé dinañu woote bon d'accord de toute façon euh, beneen yoon ki nga xamante ne bëgg nga ñëw daa nekk nga fa boo ñëwee jaat yoon bu normal servir leen hmm. boo ñëwee di nga mën a am seen ay kayit voilà merci très intéressant fii ak fee euh, ak Didi euh, d'amour comme chaque mardi lépp loo xamante ni soxal na euh, ñi nekk ci diaspora bi elle en parle parce que moom mooy seen ambassadrice bi ci télévision Futur Média donc comme on le fait tous les mardis matin sànq bi nga naan dëgg la sama xel dafa nekk ci benn vidéo bu ma doon seetaan ci président Léopold Sédar Senghor muy expliquer ay syllabes naan dëgg la fokk la rëgg la dëgg la dëgg la bi nga nee bi nga nee la ma yemaloo eh gën na ci man de dëgg la fëgg la dëgg la dëgg la pëkk la tëkk ah eh, dëgg la ko na yàgg na ah j'ai aimé j'ai aimé ça kenn laaju la partagé leen lii aussi je te jure t'as jamais vu mel ni rappeur waaw njuy du ma ko sax teg léegi ñu jàll ci <laughs> Ah, je te je te l'envoie t'as jamais vu ça. mais du mu demee waatee euh, Joal xaw ma ah, fu mu demoon nag waaye mu ngi toog rek ñu koy filmé man doo dugal muy expliquer affaire bi silab daal di transiter ci rap bi. mel ni koy hip hop. si je